waaw moom lay maye de eh tegal Pokola Pokola nee na gars yi eh, la lan bakkan bi lay dem teg bakkan bi lay joxe ñëwaat ndax yéen ma ñor ma ñor eh, eh. waaw mais eh ndeysaan ndeysaan ndeysaan déggal loolu eh Pokola li lan la Pokola li lan la ndeysaan il est confiant eh ndeysaan vraiment vraiment lii c'est mignon Pokola il est très confiant ndeysaan macha allah macha allah nii la magu mbër la rakku mbër la papa mbër la nijaay mbër la ndeysaan si kër mbër ndeysaan lii lii garaaw na eh eh ndeysaan ndeysaan ndeysaan Pokola wa ngi noonu Pokola mi ngay ree mi ngay joxe fooy balance fooy balance jàmm loolu il est confiant il est confiant ba pare mu teen ne gars yi lan lii doon na war lii dafa garaaw wallaay foo feedee eh Modou Mbaye foo feedee Serigne Sylla foo feedee Ameth Nar foo maa ngi leen di bëggee di leen siyaara ndeysaan waaye liñ diw seen la loolu tusngalu la loolu tiit di loolu tus nga la ndeysaan ee eh, génn nee nañ ko may nañ ko may nañ ko may ko may ah a ah, dafa ngeemu nii ma lay lay la ey way xoolama loolu ya papa pokola baba da koy da ndeysaan ndeysaan astaghfirullah bu ñu wax loolu déedéet ndeysaan boo ko nee bu leen saaga ndeysaan bay daaru la nee na nañu way bamba oh ndeysaan yoo ndeysaan xale yaa ngay saaga mu ne mukk bu leen saaga nañu way lépp a ak kafa ak ree ndeysaan li rafet na ndeysaan lay li na eh lay rafet na eh lay doy na war ndeysaan la garaaw eh ndeysaan ay ay waay ndeysaan xoolal ma ko ndeysaan nee na bigin ngeen ñëwaat nee na bigin ngeen ñëwaat de ndeysaan jox nañu rendez-vous de eh, eh. ndeysaan ah, xale la xale la ki mi dajal la ndeysaan lis njaago doomu jàmm gën bi mais waa jàmm gën de nee waaw lamb ji bu yeggee timis di nga gis ay bët yu ne ay kanam yu ne eh, man de loolu moo ma tiital dañuy soppeeku ah loolu wax ni ne kay ah, yow kii bare na di waaw waaw daa kay léegi la ndax si forme ah. ah, mais xale baa ngi si forme mais xale ngi si forme ndeysaan sañ naa bañ ndeysaan Issa Diop nee na ko yàlla na la yàlla may ndam El Hadj Modou Ndaw nee na ko ndam rek incha allah rabbi Mbaalo Awa nee na ko eh Pokola wa ngay dem moom fan la jëm moom ah, moom fan la jëmati eh moom fan la jëmati moom ba pare moom daal ngeen boom bi lay doxandoo si mbedd mi waa la wa lii la waa lii la nii. ma ngay jaddali de ma ngay jaddat de ndeysaan ey waay Samba Ndaw dem na saraxe den na saraxe bi ngi ñëwaat léegi den na saraxe ndeysaan Modou Ndiaye nee na ko ndam rek Pokola Baldé ndeysaan ah moom daa bëgg a moom moom daa bëgg a añ ma ngay ñëwaat ma ngay ñëwaat ndeysaan xoolal na ko si añ waaye dañuy dem ne dox gars yi seen dañuy dem ah bàyyi leen seen caaxaan yi waay Modou Mbaye may ko tuuti ma waay man li maa ngi koy soog si mbër gaaw leen si añ yi dañuy dem esat moom de moo génne boppam doxandu si koñam joxe ay saraxam dem xool ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy togg añ yi ne si eh, añ yi dañuy dem dañuy mi ngi naaj ndeysaan xale yi bàyyi leen ko. mbër bu toolee fii dafa am ñu ko war a am ñu ko warul laal ndeysaan Kalidou maa ngi lay nuyu lii doon na waar ana Ama Balde ana Jules Balde ana Jacob Balde ndeysaan ana Babacar Balde éé ndeysaan tey kër Falaye Balde ndeysaan xoolal ma lii rek ndeysaan lii garaaw na laay lii doy na waar lii doy na waar doy na waar doy na waar ay kayitu tabax waaw moom lay maye de a eh, tegal Pokola Pokola nee na gars yi eh lan la lan bakkan bi lay dem teg bakkan bi lay joxe ñëwaat ndax yéen ma ñor ma ñor.

rakku mbër la papaam mbër la ni yaay mbër la mu war a déparé fii si kër mbër ndeysaan lii lii garaaw na eh, eh. ndeysaan ndeysaan ndeysaan Pokola wa ngi noonu Pokola mi ngay ree mi ngay joxe fooy balance fooy balance jàmm la il est confiant il est confiant ba pare mu teen ne gars yi eh, lan la. lan la lii doy na war lii dafa garaaw wallaay foo fee dee eh Modou Mbaye foo fee dee Serigne Sylla foo fee dee Ameth kenn du yéen maa ngi leen di bëggee di leen siyaara ndeysaan waaye liñ diw loolu tusngalu la loolu tiit di loolu lan oh. eh, nañ ko may nañ ko may nañ ko may nañ ko may. Ah, ah dafa ma. lay lay la la. ey way xoolal ma loolu. ja papa. Pokola babay da koy da ndeysaan. ah ya ndeysaan. ah astaghfirullah bu ñu wax loolu. déedéet ndeysaan Pokola nee bu leen saaga. ndeysaan bay daaru la nee na nañ way Bamba. oh ndeysaan yoo san eh, xale yaa ngay saaga mu ne leen mukk bu leen saaga eh, nañu way lépp foole ak kafo ak ree ndeysaan li rafet na ndeysaan lay li nice na eh lay li rafet na eh lay li doy na war ndeysaan bu ko garaaw eh ndeysaan ay waay ndeysaan xoolal ma ko ndeysaan nee na Pikine ngeen di ñëwaat. waaw waaw loolu nee na Pikine ngeen di ñëwaat de. ndeysaan bu ko laa jox nañu rendez-vous de. ndeysaan la. Ah, xale la xale la. tamit xale la ndeysaan Liss Ndiago doomu jàmm gën bi. tam li du génn Sénégal mais waa jàmm gën de nee nañ. waaw lamb ji bu yeggee timis. waaw di nga gis ay bët yu ne ay kanam yu ne. ma Mbadou eh, man de loolu moom mu tiital. dañuy soppeeku. ah. loolu wax ni yow waaw ngeen mu ne kay. yow kii bare na di. waaw waaw daa bu kay. léegi la. te Pokola mi ngi si forme ah. ah mais xale baa ngi si forme. mais xale baa ngi na ko yàlla na yàlla may ndam El Hadj Modou Ndaw nee ko ndam rek incha allah rabbi Mballo Awa nee na ko eh Pokola wa ngay dem. moom fan la jëm moom ah, moom fan jëmati e moom fan jëmati moom ba pare moom daal ngem boom bi lay doxandoo si mbedd mi la waa lii lan la waa lii ma ngay jaddaat de ma ngay jaddaat de ndeysaan ey waay Samba Ndaw dem na saraxe dem na saraxe mi ngi ñëwaat léegi dem na saraxe ndeysaan Modou Ndiaye nee na ko ndam rek Pokola Balde ah, daa bëgg a añ moom moom daa bëgg añ ma nga ñëwaat ma nga ñëwaat ndeysaan xoolal ma ko nee na ko gaaleen si waay dañuy dem nee na ko gaaleen si añi dañuy dem ah bàyyi leen seen caaxaan yi waay Modou Mbaye may ko tuuti mo waay ma ne li maa ngi soog si mbër gaaw leen si añ yi dañuy dem esat moom de moo génne boppam doxandu si koñam joxe ay saraxam dem xool ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy togg añ yi ne leen eh si añ yi dañuy dem dañuy dem bëre ji mi ngi naaj ndeysaan xale yi bàyyi leen ko mbër bu toolee fii dafa am ñu ko war a am ñu ko warul laal ndeysaan Kalidou lay nuyu. lii doon na waar ana Ama Balde ana Jules Balde ana Jacob Balde ndeysaan ana Babacar Balde ehe ndeysaan tey kër Falaye Balde ndeysaan xoolal ma lii rek ndeysaan lii garaaw na laay lii doy na waar lii doy na waar doy na waar doy na waar